yow mi ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri soog a dem yam na xadimal Moustapha aousubillahi mina sheytan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bañ sante yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallama di sant suñ tubaa xaadim rasul mi nga xam ne tey moo waral lii lépp tey ñu am mbégte taxaw ci wetu kanamu suñ Moodu Mbàkke Jaw bi nga xam ne kenn la ci wóolare sëriñ bi at mu jot day and ak sëriñ bi ci màggal gi di dundal non la koy defé ci am te dëkk mbalit Dara Rahman jaw kon mom lañu jox kàddu gi euh, mu sànne ci ay kàddu ndax rek ci màggal gi ki nak moy suñu Cheikh jeng nim mom moy waxal sa sëriñ bi nim mu bis bi ak taxawaay ban la ci am. alaykum wa rahmatulah taala wa barakatuh yen mbokki mouride yi mbokki talibé yi ñoo leen di ziar bu baax baax ci turu suñu kilifa gi ñu andal di serigne Modou Mbacke Diaw mu ñew tay nak ci keur serigne Cheikh Diaw serigne Cheikh Diaw ko ko xam xam xam ni mom moy njabootuk serigne bay Serigne Diaw Mansour serigne Modou Mbacke Diaw mi ko ñew seet ku ne xam ni moom itam mooy njabootuk maam malum Diaw. te sox ko ci sëriñ Cheikh Diaw kon bu ñëwee fii ñëw na fu mu war a ñëw ndax ñoom ñoo bokk lépp seen ñaari baay seen ñaari maam yi ñoo bokk benn maam bi kon su ñëwee fii ñëw na fu mu war a ñëw rawatina nag ci bis bii nga xam ne tey mooy bisub Cheikh Modou Moustapha bi nga xam ni mooy njëkk a doon xalifab sëriñ Touba doon kenn ci yoonu murid wi tey nag bis bii nag di bis boo xam ne si moom bisam la sëñ bi nak fonk ko lol moy sëñ Modou Mbacke Diaw mi nga xamni ni fu mu ko mos a fekk ak lu mu xat-xat dina ci ñew te bu ñëwee lim ci dox ci dëkk bi lim ci jëk def moy ñew fi ci kër sëñ Cheikh Diaw ngir ñaar yëf moy ngir bisub sëriñ Modou Moustapha Mbacke bi nga xamni ñepp ko bok ak it teew fi teway bo xamni jafé teewal maam malum yëpp fi ci kër sëñ Cheikh Diaw te ñu bokk mam mi ba taxna na su fi ñew day wut ñu am solo ñu muy andal di fi ñew bokk na ci sëñ saajo Gueye mi ci ñi mu bokk ak sëriñ Alaaj ñan ak sëñ muudu Diaw ak sëñ Baye Serigne Diaw mi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Baye Serigne Diaw Mansour ak Cheikh Dieng mii di jokkoo ak yéen waaye ñu xam ne sëñ bi daal bis bii moom da koo bokk ak sëñ Cheikh mii nga xam ni moom mooy njiitul bis bii ci kër gii nu nekk nii tey di kër sëñ sëñ sëñ Baye Serigne Diaw Mansour sëñ bi nag. di ci sant ñëpp di ci santaat ñëpp nag di gërëm ñëpp itam di ñaan lii mu yàgg lool te sa borom defal ñi fi am ay jafe-jafe ñëpp sa borom defal leen ci ak wér te guddal fan yi te jotoon ci ñaan yi ci ñaan yëpp nag ci barke Sëñ Tuubaa ñun donga yet nuy ñaan sëñ bi yàgg fi nag te wér sëñ Cheikh Diaw mii nga xam ne moom lañu fekkit sa boroom dimbali ko ba li mu yéene liggéeyal maamam mu liggéey ko nam ko a liggéeyee ci ak man akuk tal ñoo ngi koy ñaanal sëñ bi di ko ñaan mu ñaanaloon nu ko sëñ Cheikh Diaw itam sëñ bét ñoo ngi sàkku ñëpp ñaanaloon nu ko mu yàgg fi lool te ànd ko wér moom daal mi ngi sant ñëpp di gërëm te xam le ni fii lu fa waay def moom nga ko defal ndax ko xam sëñ sëñ Mët jaw xam sëñ Baye sëñ Diaw xam sëñ Cheikh xam ni ñoom ñëpp ñoo bokk maam Maalum Diaw ak maam Mët Diaw maam sëñ Diaw Mansour kon nag men maam mi rek la sëñ bi nee na mi ngi sant nam daan sant tey ñaanati rek sa borom guddal fan te wëral leen te li nga xamne moy nuro lu xew ci rew mi sa borom jëlee ko fi ba jeex tak comme ni ko sëñ Muntaxa ñaane ci barkeb sëriñ touba jërë ngeen jëf. sant bu baax ci kàddu yi xana di ñaanal sëñ Modou Mbacke rek suñu borom yagal ko fi lool te wëral ko ndax kóllëre yi nga xamne mi ngi koy sam ci digënté ak sëñ bi ñu ngi koy sant bu baax baax baax diko ko di ñaan suñu borom mu yàgg fee ñew yàgg fi fek sëñ bi ñepp am ak wër tal ak fekke ci barke daraje borom bis bii muy sama doom Safa ak ma Rasuul bi nga xam ne moo financé woon bis bii tey jii Tuubaa mu doon ninkaan boo xam ne da koo dénkoon si Mamadou Moustapha kon sant nañ si Modou Mbacke bu baax di ko gërëm bu baax di gën a feddali kóllëreem ak sëñ bi ñu ngi leen dalal bu baax ak mboolem ñi nga xam ne ànd ak ñoom jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jazaakumullahu xayran